mbër gàlle yaay mbër gàlle fanaan mbër gàlle yaay asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi aman mbégte contentement dalal leena ah si jotaay làmb nee naa leen dañuy doxantu kon situation oblige te nee naa leen dañuy dox ci li nga xamante ne moom mooy actualité semaine bi nag euh, dafa nekk semaine boo xamante ni semaine bu tàngale si ñun mën nañu wax ne waa axlu làmb moom ay combat yoo xamante nii nag dafa waroon a am muy dimanche bi passé ñëpp xam nañ ni waa arène Dakar ñu tëgg mën nañu wax ni dix maire combats tey nag ki ñu fekk si fii si euh, géejawaay Alba muy Marley doomu géejawaay bi bu defi lu nekk mu am na combat boo xamante nii da cee waroon a wane boppam ndax gis nañ li nga xamante ni moom mooy polémique beeg lépp ci combat bi. combat bi ñu dem ba benn instant ñu ne combat bi amul ndax lan ay raison yoo xamante ni dinañ ci ñëw dañ koy bàyyi nag mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi xool combat bi ban impact la def ci moom ak li nga xamante ne moom mooy ay supporteram Marley maa ngi lay nuyu. di wax ne kontaan bu baax a baax ci teewaay bi di rafetlu teewaay bi tamit bu baax xama waaw di bëggee ñëpp di nuyu ñëpp di ñaan yàlla na jàmm yàgg. Mhm. Marley ko duñ ko waxee léegi rek Marley nga doon préparé combat boo xam ni bu am importance sa carrière ndax gis nañ tey fi nga jóge nga dem ba benn instant ci jour bi nga war a takkee ay jaaj wala dem jàmmaarloo ak Nécko Rell la nga déglu information bi que ni combat bi amatul loolu nan la def si waaw loolu li mu def si du ma wax sax si man loolu li mu def si mbër yi waroon a bëri yëpp dafa metti parce que bu fekkante ne nii da nga war a annuler combat war nga koo wax avant mais boo bàyyee ba lu xam la jour yi nga xamante ne sarax yi da nga koy génnee gars yi nekk si regroupement yi toog xam nga li ñu war a nekk yëpp ñu nekk si li nga war a def nga def ko nga finance sa xaalis ba sonn xam nga ba dara desul lu dul tax sër pour dem sa làmb yàqu xam nga loolu tamit dafa metti mhm. moo tax xam lépp lu ñuy def rek war nañ koo mën a xoolaat xam ne tamit ñun maanaam ay doomu aadama lan daal war nañu jox cër war nañu respecté. Mm-hmm. ma man pour man lii xam nga respect amu si daal. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que mérito na lii. non làmb mérito wul lii xam nga dafa am loo xamante nii dafa am gis nga nit bu la nit ñi jiitalee da nga war a am nooy doxee ndax mus nañ ma interview fii xam nga laaj ma ne ma ñu ngi ut président bu bees pour CNG maye leen de président bu bees bu màgget bi ñooyam l'essentiel daal kii ñëw na fexe ki ki nga xamante ne moo fi nekkoon li mu fi def mu def fi lu ko raw. mais ki fi nekk nii moom xam nga santiruñu suñu bopp si moom quoi. Birasien waaw santiruñu parce que wax dëgg yàlla bi mu ñëwee bële man moom gisaguma lu mu def lu doxal làmb. ok man gisaguma ko. ci lépp. si lépp. parce ah. tamit xam nga dañu war a jox suñu gëdd quoi dañu war a jox suñu cër. bu demee ba nekk président CNG ñun ñoo tax kon ñu la nekk suñu président. Mm. comprendre kon war na mën a rafet war na mën a naaj ndax xam nga bu ñuy annulé suñu combat ñu bàyyi ba mu des une semaine ñu ne dañ koy annulé ñu mën a comprendre sax. Mhm. mais bàyyi ba le jour yi ñuy soog a xam ne ñun xam nga waaw yéeme na daal. te mhm. joxuñu joxuñu ñu ay këyit joxuñu promoteur bi kayit xam joxu ñu bu fekkoon te ne tey ñoo wax ne dañoo war a bëri kenn ñëwul su boobaa dañuy am problème ñun. Mhm. kon ñoom war nañu respecté respecté boo xamante nii xam nga. bu dara war a yàqu ñu woo ñu kat ne lii lay yàqu. bu ko defee ñu comprendre ndax nit moo gën a fort ba xan te rey xëy wadd te kenn du si mën dara. combat bi dañ koo annulé nekkul ni loo xamante ni amul mais dañ koo annulé parce que pour des yoo xamante ni que ni xam nga tey yéen. il faut que ñu sécurité leen sécuriser leen. ngeen mën a bëre mais est-ce loolu moom moo tax rek mais nekkul ni ñoom ñoo du ci Bira Sène annulé wul combat. non xam nga dañoo maanaam sé problème mu sécurité lañ wax. Mm. comprendre nga. Mm. mais problème sécurité bu fekkente ne dañ koy wax war nañ koo wax avant déggoo ma de man dara méttiwuma si mooy lurul lu ñu def lu ñu def ba pare. ba dara desul lurul ñu war a takk sër pour dem bëre yi ñu ne ñu làmb am. Mm-hmm. mais nañ ñu teel a yëgal ñu ñu mën a xam ne kat ñun ñii du ñu bëre. mais ba samedi si guddi xam nga ngay jëli say bagage di def li nga war a def di def say sarax ba xëy suba gi gaan war a def li nga war a def ñu woole ne la lii ak lii. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. maanaam loolu dafa neexut. boo dégganteeg promoteur bi maay déggante ak ñoom mais daal xam nga suba la ñu waxaat ak yooyu affaire yooyu noonu tamit neexul ci xool daal. Mhm. Mhm. léegi instant bi yow euh, Marley ba léegi yow contrat daf la lié ak promoteur bi. waaw ba léegi damay bëral promoteur bi. ñu laaju ñu reliquat laaju ñu dara parce que promoteur bi dafa signé ñun te bi mu signé ñun ba léegi lépp lu mu war a def ñu ngi koy def kon li si des si ñun la. comprendre nga ñun tamit dañoo waroon a ñëw remplir suñu contrat ñu gis affaire nu mu demee. kon du si promoteur du si ñun. mais tamit ñun heure bu jàppee bis moo xam ren la moo xam déwén la moo xam déwén jéeg heure bu mu mënti doon daal. man dinaa ko bëreel. mais après komba bi gis nañ ko ba mu bañ koo annulé ñu ngi dégg mooy ñi nga xam ni ne tey euh, dañoo jege ne ko réel la ñu ne combat bi arrangé na Marley ci nuñ ko annulé ndax sa combat ak ne ko réel Marley ndaanaan nga. Négory la ndaanaan mais ci côté bëre bi ñu bari dafa bari woon ay polémique est-ce que loolu yaa ngi ci doon bàyyi xel. waaw lool noonu man du si wax. ndax enragé na mar la wala enragé wu ko. loolu duma si wax ndax xam nga ko pare moom ba dara du su lu dul takk sër dem bëre ji. ñu naan ay enragé na ko wala enragé wu ko loolu du ma si wax. Mhm. comprendre nga. Mhm. lu waroon a am le 25 yàlla moo ko xam mais l'essentiel daal ñun suñu gëm-gëm. ak li ñu liggéey. billaahi gëm na ne bu ñu demoon incha allahu rabi Nekkureel duñ téye. mais nag li am am na kenn mënu si dara. du si Nekkureel du si man comprendre nga li si des daal mooy ñu waajaat ñu jàppaar beneen bis te mu gën a xam ne moom it day gën a métti si moom. moom Nekkureel. billaahi wallaahi. mais yow su ko mag Nekkureel yow yaa def choix boobu parce que Marley fi nga toll ci làmb. bëri nga ak ndaanaan bu nekk bés bu nekk am nga ko fi tey maar la ñu dem ba benn instant boo xam te ni fi nga waroon a yéeg yéegoo ko defaat benn dem benn pas la ñu wax ñëw jël ne ko réelu pourquoi boobu. waaw moo boo déggee ma ne la man li ma boole ak moom sax mooy si lu ma jugee mais sinon moom beneen yoon la doon jël ma jël beneen yoon parce que maanaam moo ma jiitu si làmb mais bokkuñu si làmb tamit. comprendre nga mais nag lu mënul ñàkk day am. saa dégg mm. mais moom bu xoolee ne dañ koo jox quatorze adversaire kenn nangu koo jël moom loolu la ñu wax. comprendre nga ñu jox ma ko man ma jël ko kon mu xam ne man am na lu may pare. est-ce que yaa dégg. waaw moom bu ma jëlee avance am rek war na xam ne kon kii nekkul koo xamante ni ku may ñëw di waaw di bàyyi xel la wala dara. ne ko réel bàyyi ma ko sax xel yàlla xam na loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. mais ñi jox favori. ñu bari dañ koo jox favori ah. ndax gisa même da ngay gis sax même reportage yi dañ ne Marley mënul am ci moom dara parce que Néko Réel la Marley mënu koo yegg fen na waaw loolu du dara loolu ñu xamul làmb ñoo koy wax mais ñi xam làmb xam qualité mbër xam na ne mën ak Néko Réel duñu benn loolu yàlla seere ci ban ci côté bëre wala. ci côté bëre ci côté fit ci côté doole si lépp Néko Réel la man mënu moo ëpp doole hmm. barki yonent yàlla Muhammad mënu ma ëpp doole te bu fekkente ne bëri la àgguma fii billaay wallaay taalaay yàlla seere na loolu mais nag xam nga. Mm-hmm. nit ñi moom des fois kenn ku nekk ak fi ngay gisee. Mm-hmm. mais ndaanaan dëgg mu war a maanaam wax si suñuy qualité rek. Mm-hmm. bu bo <laughs> su boobaa nga xam ne ne ko réelal àgguma fenn si làmb. côté poids bi. ñu gis ni da nga jël poids lan moo waral loolu nekkuree moom moo tax wala da ngay ñeneen ñu. non man kay jëluma poids. non si maar maar dafa am poids. non non jëluma poids de nekkuree la kay lañ wax moo jël poids. mais am na poids da sa yeneen combat yi. gis préparation a par rapport ak yeneen sa combat fi jaar ndax gis nañ ni da sa combat yi doon jeex par rapport ak bi pleine en forme forme dafa ñëw ko waaw xam nga làmb maanaam dama daan daj ay coono sax si làmb mais làmb yi nii dama see daj ay coono yoo xamante ne nii xam nga ma la ko sax expliquer. Mm-hmm. billaay wallaay heure bii nii nii laa doon jóge Thiawane Pël man ak koo xamante nii xam nga zoru duwaañ la ñu nekk si montagne yi bu may liggéey loolu loo xamante nii xam nga bu ma ñëwee lekk sax du ma ko tal mm-hmm. comprendre nga kon làmb ji am na fu ma teg mm-hmm. bu ma jógee fii nii xam dem ba Tivaouane Peulh si benn heure bi nekk fa di liggéey liggéey yu metti hmm. ngir làmb kon am na lu ma jaral quoi. Hmm. te weesu na weesu na après li si kanam la ñuy xoolaat quoi. Hmm. trois avance dafa xew. quatre avance dafa xew même bu dul ne ko réel est que tey pare nga pour jël si booy yi bëri ak ñoom. waaw pare naa pour jël si booy yi bëri ak ñoom mais nag man faamu bëri ak ne ko réel la ba pare waaw loolu moom. loolu moom lu ma lu may lu may neex lay doon moom faaw ma bëre ak moom ba pare bu buñ ma seet si woon sax. Hmm. pour yeneen combat sax du ma ko jël. Nicoréel rek Nicoréel laay bëreel ba pare. Hmm. waaw sa combat ak Nicoréel ñu bari dañ ne. chance bi maar la instant bi combat bi gagné rek moo ko que fi mu toll moom moo tax est-ce que yaa ngi bàyyi xel loolu. <laughs> waaw bi gagné moo ñu si war dañ koy gagné. bu neexee suñu borom. làmb ji. Hmm. incha allahu rabbi laa lay waatal dama ne la billaahi wallaahi taalaay dañ koy gagné. foo ko teg ci côté mystique. nga ko teg wala non non baal dara affaire bi du mystique de affaire bi xam la liggéey gëm sa bopp. Mhm. ak wóolu sa bëre tamit. Mhm. mais du affaire ay mystique de mystique du dara. comprendre nga dafa bokk si làmb bu doon 100 pour cent mooy làmb. 10 mhm. pour cent yi mooy mystique bi 90 yëpp maanaam entraînement la ak gëm sa bopp. instant bi làmb fi mu toll gis nañ ko. ndax gis nga am na ñu bari ñoo xam te ni ñu ngi doon voyage bàyyi fi làmb ñi ne làmb day dee te ñu gisaan situation bi yëpp décanté waat ci mbëri instant bi yow tey ëllëgu làmb nan ko ko gisee waaw dafa xam nga comme liñ dal ñi rek promoteur boo xamante ne dafa investir xaalisam boobu ba léegi làmb ji am at suñu combat bi xam nga at ak lu teg sax comprendre nga mu mu def si lu nekk ñëw ba dara desul lu ñu war a bëri ñu yàqal ko journée am mu war a dem wutuwaat pour ñëw defaat si comprendre nga ñun mbëri ñu war a wutuwaat pour ñëw defaat si ak yeneen combat yu amoon yàqu ñu ngi war a jëm si combat Balla Gaye war a jëm si combat xam nga ñoom Siteu Papa Sow lamb yooyu yëpp dafa war a am gars yi xam nga lan lañ war a def bàyyi lamb ji mu dox parce que tamit lamb ji bu doxul après ñoom mën na gis leneen ndax lamb dafa defar lu bari nga am na si ñu bëri bëri bëri ñoo xamante nii tey bu woon ak lamb amaana mën nañ jël beneen yoon. kon làmb am na lu mu defar daal lu bëree bëri. moo tax nañ joxaat cër làmb ñu delloowaat promoteur li ñu moom. comprendre nga. Mhm. delloowaat promoteur lu ñu moom ndax burul ñoom làmb du dem. Mhm. delloowaat mbëri tamit lu ñu moom. Mhm. ndax mbër tamit sans promoteur du dem. comprendre nga. moo tax nañ nañ defar daal. parce que defar moo ñu war. promoteur yi gars yi làmb yi ànduñu. loolu moo tax lu bari te làmb sooxe loolu lan nga ci wax. non promoteurs yi xam nga tey yaa ngi dégg ñu naan xawma côté bii nii ñii dañoo far côté bii ñii dañoo far même bu ñuy faree ñiy farit ñoom ñëpp ñoo bokk luñ bëgg comprendre mhm. kii li muy tëgg moom la kii di tëgg rek amul promoteur bu ndaw amul bu mag. Mhm. parce ku nekk boo joxewul xaalis sa làmb du taxaw. Mhm. ku nekk boo deful li nga war a def doo tëgg làmb. kon ñëpp ñoo yem l'essentiel daal état bi nañ gëstuwaat làmb xam jàppale làmb xool li nga xamante ne nii mooy doomu aadama yi jóge feneen ak feneen ñëw di investir si làmb làmb hmm. suuxee ñu indi ay moyens yu bari def si hmm. xam nga pour seen réew gën a évoluer mais duñ ko def hmm. bëgguñu ko quoi maanaam dañoo bëggul làmb billaahi état bëggul làmb bëggul làmb ndax boo xoolee ba ba léegi yeneen sport activité yëpp mu ngi dox comprendre nga te ñoo mujjee tijji voilà te ñun xoolal bi saison bi tijjeeg léegi yàggul te instant bi nii si tëj ko doon jëm. septembre dañoo war a stand by. ah yéeme na de. waaw eh. ah, yéeme na trop nan xoolaat daal li ñuy def. Balla Gaye Bombardier. Balla Gaye Bombardier dañuy ñaanal Balla Gaye mu am ndam. mais nan nga gisee ñoom ñaar seen état physique muy bala Gaye ak Bombardier. bokkuñu sax ñoom ñaar lu ñu liggéey. ok waaw parce que Balla boo xoolee da ngay xam ne pare na tous les côtés. Mm-hmm. comprendre nga. kon kooku amuñu luñ koy wax te kenn du ko wax ne ko nii ngay def wala nii. te incha allahu rabi day am ndam guy gi tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla may ko ku la ndam lu sedd guy. noo gisee Siteu Papa Sow. Siteu Papa Sow waa lamb la ju neex. parce que ñoom ñaar ñëpp ñu ngi waaj. comprendre nga ñoom ñaar ñëpp a ngi waaj waaj bu am doole mais que le rek. Hmm. Hmm. Siteu Papa Sow que le meilleur gagne. que le meilleur gagne waaw. Hmm. Marley amoon mbégte contentement ndax kon li ñuy wax duñ leen téye parce que tey seeni bés da ngeen ciy def lu nekk. Marley ñaat la investir ci combat bi. ah mais wax dëgg yàlla def nañ ci xaalis def nañ ci maanaam def nañ ba ñoo xam ñu sax luñ ci def. comprendre nga wax dëgg yàlla liñ ci def metti na xam nga bëri na mais mënuñoo taxaw naan ay lii lañ ci def wala lee parce que gis nga mbër booy def mënoo xam li ngay def. parce que sarax bu ne lan lay génneeloo. mais parce que combat bi daf la jaraloon maar la yow da cee investi daf la jaraloon. sa combat waaw ma jaral déggoo li ma la wax dama ne la. Hmm. yàlla rek moo tax may wax. Hmm. li may wax nii maanaam bu ma dee sax dama koy waxaat mais billaahi wallaahi li ma def si combat bi si xaalis ma koo def si combat. si combat ak Nico Réel. barke rasulillahi waaw daf ma jaral. si hmm. côté yëpp nag moo xam wàllu entraînement bi xam nga moo xam wàllu bu mu doon. si côté yëpp li ma def si làmb ji musuma ko def si làmb. Mhm. billaay wallaay. lan nga yor say supporter. waaw ñoom moom aw ma seen fay. ñoom ñoom baay boo gisee dib bi làmb yi taxawee ba léegi ñu ngi ray seen bopp. Mhm. fii boo fi jaaroon keroog. vendredi ba samedi da nga naan lamb chaque jour lamb moo fi nekk. ak open presse bi ndeysaan. chaque jour laa la wax bi nee suba lamb ji aziko yi lañ indi fii gars yi xam nga benn heure di yëngal kon nga xamante ni am na lu leen métti waa mhm. mais nag xam li ñuy wax rek jàpp taw mooy tax a yegg fa nga jëm ñoom nañ gën a jàppaat. te xam ne xam nga li si kanam rawali bët yàlla baax na. gars yi naan leen làmb moom dafa nekk loo xamante ni euh, da ngay da jàpp rek. ndax euh, mën ngaa préparer ba le jour tamit am loo xamante ni day mais lépp luy am rek jàmm. Mhm. ndax duñ ko waxee yow suñu frère nga. suñu xarit nga suñu lépp nga di la ñaanal jàmm ak naan la cant ak ngërëm. ñeel na la lan lan ngay tàggatoo. waaw di wax ne yàlla jàmm yàgg di bëggee fans yëpp man moom du ma tudd kenn maanaam ñi nga xamante ni ñoo may bëggee maa ngi bëggee ñëpp fans yëpp di leen ñaanal yàlla suñu borom dafa parce que nan man ñoom sax ñoo ma gën a sonn xam nga di waaj ci affaire yëpp kon li may ñaan mooy yàlla suñu borom bi gën a dolli jàmm gën leen a dooleel parce que gis nga tabax bi taluñu ko ñoom lépp ay tiset lañ ko def ay ensemble xam nga metti na ko waa kon si ñoom maa ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom bi taxaw leen te defal leen jàmm waaw di leen ñaanal yéen bu baax di ñaanal waa Rent DKR ku si ni Alain ak Jimbo ak Pape Sarr. parce que seen taxawaay rafet na li ñu a def si bis bi yëpp def nañ ko. mais nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam ñu di ñaanal. yàlla ngeen réussir ak jàmm. mbër gàlle yaay mbër gàlle sargal yaay su